asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat yéene dellu si ak yéen ci yóbbulu bés bi àndal ku la neex te xam ne yàgg moom yéen a yem diine bu diineem dëgëree moom mi ngay àndal sa diine diine ju dëgër la bu diineem woyofee xamal ne ku woyof diine nga xamal ne ku woyof diine nga ñoo ngi ko toxalee nag ci téere bu ñu naan fatxul mën naan sëriñ Tuubaa wax ko fa jërëjëfe sëriñ Tuubaa maam Cheikh Ibra